salaamaaleykum chers followers de RTS Digital tey ñu ngi fii ci rond point Sandaga bu Dakar Plateau Sandaga ñaari fan yi métti na lool ci coowal déguerpissement bi nga xamante ni dox na diggante marchand ambulant yi ak ñi nga xamante ni mooy municipalité bu Dakar Plateau tey gis ngeen marchand ambulant yaa ngi nii toog lan la ñu liggéey ñu leen di aaye lal ci bërëb bi cool yi nag bëri na jàppante bi metti woon na mais incha allah tey dinañ fas yéene rencontré ñi mooy collectif marchand ambulant yi ak autorités yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci zone bi pour ñu wax ñu exactement cool yi lan moo fi xew donc topp leen ñu xool ñu fekk fii ki nga xamante ne tey moom mooy Moustapha Guèye mu ngi bokk ci marchand ambulant yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci plateau Moustapha ndax mën nañ xam situation bi nu mu demee bon situation bi moom lu simple la jafewut parce que Alioune Ndoye baax la man 92 ba tey maa ngi ci marché bi. place bi yor naa ko 18 ans. borom moo ko nangu. su ko borom nangu amul foo jëm. te amagu foofu benn place ci mbedd nga nekk ñii ñëpp ay góor lan ay liggéeykat la. koo gis am na ñaari jabar. yor papam yor yaayam. dañu ñaan Alioune Ndoye mu waxtaan ak Ousmane Sonko premier ministre. moom moo jiite réew mi. na oyofal mbir mi pour le moment seet fu nu nekk nit ñëpp nu jaay en attendant moom.

loolu mën na indi solution pour que ñu wañi peut-être ñenn ñu fi nek ñeneen ñu casser na si yeneen zone en attendant marché bi di paré benen bi moy waxtaan ak au lieu de recourir à li nga xamantene moy la violence parce que man pour man violence de solution. Mhm. et nañu bàyyi aussi encore une fois dans le fond de mettre de la politique politicienne dans les actions. parce qu'aujourd'hui c'est pas le président de la République Bassir Diomaye Faye ni le premier ministre le chef du gouvernement bu leen wax ni dem leen ngeen jël bagage marchand ambulant ngén ngeen len ngén dam sen ay table nga toroxal len mhm. parce que gëm ñëpp xam nañu ni dañoo xeex injustice ba egsi fii ci nguur. il faut reconnaître que occuper tali mom nekkul solution rawatina à Dakar parce que man mosuma ko nangu c'est ça c'est ma position ci lolu amul len luy wara tax di occuper voie publique biñu jaar parce que man li gérer dafa sensible palais beeg institution yépp ñu ngi Dakar plateau rawatina ay Sandaga ak yoyu donc bu fekkente ne dañ ko nar a def li valable feneen mënu fee mënu mënu fee am parce que sama priorité man tey ci li may lijjanti fii ci Dakar Plateau mooy problème sécurité mooy problème sûreté mooy problème salubrité ak problème mobilité <laughs> loolu nag bu ñu ci d'accord ba pare ma recevoir leen audience te ñu dem benn réunion ak ñoom bi ñu tëjee réunion bi d'accord nañu ko ne li am jaaduwul regretté nañ ko jéggalu nañ donc aussi nit ki bu fekkante ne am na lu xew te mu xam ne am na ci responsabilité bu jégoo dañ koy jéggal reproché nañ tamit marchand qui euh, euh, euh, agent commune bi ni ñuy ñëwee fofu foofu tamit néna alune ndoy que buñu ñu opé bu xalé di génn pour def opération yi mel noonu nañu jël attache police mu encadrer leen ordre public police moo koy mën def même fekk opération de routine la il faut que ñom ñu ànd ak police buñu paré ñu communiquer traiter tamit les jeunes avec responsabilité ay nit lañu buñu wax ñu ni ñu war wax ñom police ñëw ala ku ñu xam dañuy nangu bu loolu wesso xamal ne tamit donc lii nga xamante ne maanaam mooy tali bi ak trottoir yi fii ci Dakar man du ma ko sa a nangu bi ñu te tenir réunion bi tamit laaj naa leen ñu pro def may proposition bi ñu defee proposition yooyu gis nañ que ne ñoom amuñu espace amul Dakar donc comme espace mu amul dakaar déjà man c'était pour xamal leen problématique bi ñu am pour recaser les marchands ambulants waaye teewul am na gymnastique yu ñuy def ay poches yu ñu gis côté Kermel côté champ de ak yenn terrain yi fi nekk pour wax ak borom. foofu ñu seet naka la ñuy def ba recaser leen foofu provisoirement en attendant ñu construire marché Sandaga ñi fi nekkoon jëlaat seen place ensuite champ de course bu ñu ko libéré ñu si des mën ko occuper loolu mooy solution structurelle yi waaye xataa bëgg tout de suite créer ay situation pour chantage lolu man je ne céderai pas au chantage ak ko mën don nak bor bo mën a tek pression ci état bi tamit du ko nangu parce que mënul nekk te warul nekk te du nekk.